dana la jox ab netali bu doxoon ci digante ñetti sahaba ci la ñaan gi génne sahaba bu ñu wax saad ibn abi waqas dafa ma sa ñëw ci jàkka ji fekk fa usman ibn affan mu tok saad nuyu ko ni ko alaykum usman fay ko loolu metti sahaba bi lol mu dem ci umar ibn al-khattab ni ko man li jaxle na amna naa lu ma metti tek ci Omar ni ko lu xew mu ni ko usman ibn Affan la fek fële ci jàkka ja ma nuyi ko ta fayut ma Omar daal di jóg ànd ak moom dem ba ci jàkka ja fek fa usman mu ni ko usman yow lutax Saad ni nga xamni ni nijaay la ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lutax mu nuyu la ta fayoko ko Saad nijaay la ci yonent bi Ousmane ibnu Affan ne ko Saad nuyuwuma de Saad ne ko déet Ousmane man nuyu naa la ay saxaaba lañ nag yonent bi leen yar ci wax dëgg ak ci def dëgg Ousmane wax na lii Saad wax na lee Ousmane ne ko Saad nuyu woo ma Saad ne ko nuyu naa la fekk naa la fii ci jàkka ji ma nuyu la Ousmane xalaat ba mu yàgg mu ne ko wax nga dëgg de wax nga dëgg nuyu nga ma kay waaye nag ba may nuyu daf maa fekk ci ay mbir may xalaat Omar ibn al-Khattab niko loy looy xalaat ba tax fa yow kii Ousmane ni ko la ma doon xalaat moo ma amal soxla lool def ma tiis lan la mu dafa am bés ñu toog ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam Ousmane moo ko wax mu dafa am bés ñu toog ak rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam rasulullahi mu ne am na benn ñaan a ngi nii yonent bi mu ni benn ñaan mi ngi nii maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ni yor sama bakkan moom yonent bi moo wat, wallaay ndeysaan manon naa wax rekk bañ a ndax rasulullahi ku mën wax dëgg la du wax mukk ci bànneexu bakkanam su rek te dañu koy gëm dafa wat mu ni ngi ni ñaan gii may bëgg a ñaan day bépp jullit bu ko ñaanee yàlla dana faj say aajo Usmaan mu ni bi ko yonent bi waxee keroog ci la benn waay jóge ca tool ya ñëw fekk ñu ci jàkka joojee ñu koy waxtaane ca la dagg waxtaan wa ba yonent ba àggalewut lam doon bëgg a wax ba nu noppee nag saxaaba yu bari ci ñun amoon kersa laajuñ ko sax lam doon wax Usmaan ne ko lii ci laa nekkoon di ko xalaat moo tax fayuma la woon Omar ibn al-Khattab ni ko man mii day fekk naa jataay ba keroog ñaan googee day soxla woon naa ko lool waaye keroog day amoon nañ naqar lool Saad ni ko moom Saad mi ngi taxaw mu ni ko ñaan googee day keroog ba ko yonent ba di wax fekke naa ko te dinaa leen ko wax Usmaan ni ko noo ko xamee mu ni ko keroog ba rasulullahi jógee di dem ba jotaay ba tasee ñu jóg di dem ca daw topp ko ca këram ba mu dugg ca këram laa ko dab ni ko yow yonentab yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko fee ñu nekkoon danga waat nga ni yaa ngi waat ci yàlla mi nga xam ni moo yor sa bakkan am na ñaan goo xam ne képp ko ko ñaanee say aajo yàlla faj ko yonent bi ne ko waaw maa ko wax kay yonent bi dellu ne ko saad maa ngi waat ci yàlla mi nga xam ni moo yor sama bakkan ñaan gii ma lay bëgg a wax képp ku ko ñaanee say aajo yàlla dina faj say aajo lépp jullit nag saad mu ni ma ne ko yonente bi ñaan googu gan la yonente ba ni ko mooy ñaan ga nga xam ni moom la yonente yàlla yunus ñaanoon ba mu nekk ca jafe-jafe muy laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin mu ne ko ñaan gii day bépp jullit bu nekk ci jafe-jafe nga ñaan ko yàlla dana faj say aajo yonentab yàlla bee ko wax ñaan gii nag borom bi daf cee wax beneen mbir dafa am benn yonent bu ñuy wax Yunus dafa nekkoon ci jafe-jafe mu nekkoon ci géej benn jën wann ko xam nga ku jën wann dugg ak yow ci géej ga yaa ci jafe-jafe yaa ngi ci xat-xat keroog ca la yonent bi yàlla bobé nekkon ci biiru jenwa di yunus ci la waxe won ñaan gi muy la ilaha illa anta subhanak inni kuntu min adh-dhalimin yàlla muni bam ko waxé yàlla mo wax muni ni bako yonent ba waxé fastajabna lahu wa najjaynaahu min al-ghamm yàlla muni bam ko waxé rek ci la ko nangul ñaanam googee te it ca laa muccalee ci jafe-jafe jam nekkoon yàlla mu ne nangu naa ñaan nga muccal ko ci jafe-jafe boobee mu nekkoon yàlla nag tegaat ca am solo lool ngir ñun yàlla mu tegaat ca mu ni wa kadalika nunjil muminin tayit noonu lay muccalee bépp jullit boo xamante ni bi yaa ngi ñaan ñaan gi kon bépp jullit bu nekk ci àdduna nekk ci concours mbaa ci examen mbaa sax ci jafe-jafe nga ñaanee ñaan gi muy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin borom bi nee na danaa la nangul sak ñaan danaa la muccal kàddu yàlla la ak kàddu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam kon nag mbokkum jullit ñaan gu am solo la boo xam ne yàllaa ko garantil boppam ak yonentam ba sallallahu alayhi wa sallam kon bul am jafe-jafe mukk du daw ci kenn ma ngay xalaat kenn yëkkatil say loxo rek ànd ak sell ànd ak gëm yàlla tàllal say loxo jëmee ko ci borom bi ni ko laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin bu ko defee rek borom bi nangul la say ñaan génne la ci bépp jafe-jafe boo nekk borom bi nag waxaat na ci leneen yàlla mu ni yunus mi ñaan ñaan gi falawla annahu kaana min almusabbihin la labita fi batnihi ila yawmi yubaathuun mu ni yunus mi ñaan ñaan gi su fekkoon ñaanu ko nekkul ku ko baax tegul woon samay ndigal ba noppi nag bi mu ci biiru jën gi ñaanu ñaan gi mu wax yàlla mu ni kon dana des ca biiru jën wa ba keroog yowmal qiyaamati du fa mucc mukk allahu akbar kon lan moo ko muccal ci loolu mooy ñaan gii mu ñaan laa ilaha illa anta subhanak inni kuntu min alzalimin kon sama mbokkum jullit ab jullit nga gëm nga borom bi tabaraka wa taala gëm nga kàddu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam yaa ngi ci jafe-jafe wala yaa ngi ci xat-xat yaa ngi ci concours yu taw a sotti yan ngi ci examen yaa ci ay bor yu bari yow mënta fay yaa ci bëgg tukki loo mën a bëgg ñaanal ñaan gi borom bi dana la nangul sax ñaan ànd ceeg gëm-gëm ànd ceeg ragal yàlla comme li yàlla waxoon ni fal yastajibu lii wal yuminu bii laallahum yarshadun nañu ma gëm rek topp samay ndigal bàyyi samay tere borom bi nee na day danañu jub seeni mbir baax ci àdduna baax ëllëg yowmal qiyaamati kon nag mbokkum jullit fàttale la woon bu ndaw rek bu ma la doon fàttalil ni ñaan la gu am solo gu rëy muy laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min alzalimin laa ilaha illa anta subhanaka إني كنت من الظالمين كن نك مكم جلت ما نجلو لنيانات بروم بتبارك وتعالى مجيغل نمول سني بكر لكو نيان مسخل نيو تسراط المستقيم لكو نيان مدفر نيو جمي أدنى دفر نيو جمي يوم القيامة وين يلنا كبرون بدفر مولم جلت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته